ayca ci loolu la ñuy dugg <laughs> ñu dugg ci lu bëri li nga xamante ni jaar na fi vingt ans de carrière c'est pas donné à n'importe qui en 2002 moi j'étais encore très petite xëy na ñun bi ñuy dugg ci média chance bi ñu am yow amoo ko woon déjà les débuts début yi naka naka la demee woon c'était difficile bon pour man pour man c'était difficile ça ne l'était pas parce que en fait ça dépend de nu ñu la forger nu ñu forger sa caractère xam nga àdduna lu ñëw dafay am noo koy noo koy téye c'était difficile parce que di nga rencontrer des gens yoo xam ne ñoom loolu ci jiitu xam nga boo nekkee dans une passion. Mhm. comme ni ngay wax man am na ñu ma fa fekk ñoo xam ne ñoo ma njëkk a def rajo. Mhm. da leen di fan wala da leen di xool beneen parce que rajo léegi sax la tane nga xam ne moom mooy dint dinañ la mën a déglu di la seetaan. Mhm. mais bu njëkk da nga daan dégg ay voix yoo xam ne soo leen gisee da ngay tiit. da nga naan kon kii laa daan dégg. lu nekk mën na la ci dal nag en tant que jigéen en tant que jeune mën nga ko dajeel. itam mën nga dajeeg nit yoo xam ne dañu lay dimbali pour booster sa carrière mhm. dimbali la pour teg la ci yoon on a eu la chance donc moi je ne dis pas na métti métti na méttiwul mhm. lan lan nga ci fàttaliku <laughs> ci loo xamante ni lu la marqué la pendant ces vingt ans incha allah bëri na de. woo ñu si benn rek. <laughs> du ñàkk des fois day am yenn situation yoo xamante ni en tant que jigéen ci milieu bi dund nga ko nga xamante ni voilà doo ko fàtte ilaa yow mi diin en bon je je du ma ci mën a wax yu bëree bëree bëri parce que mais dina je tiens quand même damay bëgg di ko wax ci ci ci rajo wala ci tele mm-hmm. à remercier deux personnes yoo xam ne suma weesoo Mamadou Amar Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo ma formé en rajo mooy li lay wax sànq da ngay daje ay nit yoo xam ne parfois da nga leen daan gis ci télé wala da nga leen daan dégg ci rajo boo dajee ñoom ñu dimbali la. Mm-hmm. je pense que même buñ fi nekkatul war nga leen ko santé y a deux personnes muy Abdoulatif Guèye. dem si yàlla si ak Pape Babacar Mbaye te boobu ñoom ñaar toll nañu foo xam ne. Mhm. ku nekk bëgg nga toog ak ñoom. ñaan mhm. di leen yàlla yërëm maa ngi nuyu seen famille bu baax a baax damay faral di wax ne Abdou Latif Guèye c'était mon papa Pape Babacar Mbaye c'était mon grand frère. ils t'ont beaucoup aidé oui ci ci ay conseils. xam nga période boobu mooy li ma la wax sànq en tant que jeune fille jeune. lu nekk mun na xew. très bien. <laughs> merci quand même. Maria dégg naa say ah. ma dégg naa temps yi ngay yi ngay dëbbu. rajo bi mu bokk yi ngay toll ni ñun. Hmm. eh Maria. loolu lañ wax foofu laa bëgg nga dugg ak man. non temps yii nag dama nag laa doon sol casquette xam nga affaire jiin casquette dama hmm. mais la beauté était ah, la. Hmm. macha allah métissage bi macha allah métissage bi la naar la ak séeréer. donc c'est ça alors.